daa fekk ni danga gis sa njiit dalaa laa jiitu ci xeex bi il a été celui que toute l'Afrique a honoré parce que Afrique yëpp ñu ngi doon wax Sénégal jàpp leen ndaxte am ngeen ndaw bu ja bu am bu am fulla ndaw bu am jom am ngeen kilifa boo xamante ni xale la certes parce que a eu des présidents qui avaient plus de 60 ans on a eu des leaders qui avaient plus de 60 ans mais kii xale la woon mu mënoon ñàkk lu bari mu nangu koo ñàkk ndax jeunesse bi mu nangu koo ñàkk ndax Sénégal mu nangu koo ñàkk ndaxte réewam moo ko soxal maintenant qu'il a lutté avec tout le monde et qu'on est arrivé au pouvoir il vient vous parler il vous parle de votre apport dans le projet ndaw yi bu leen seen bopp ndaw yi bu leen xeeb seen bopp njëriñ bi ngeen amal Sénégal ñëpp xam nañ ko mais yéen est-ce que xam ngeen njëriñ bi ngeen amal dëkk bi je repose la question est-ce que ndaw yi xam ngeen njëriñ bi ngeen amal dëkk bi amal ngeen njëriñ Sénégal et le président va vous parler et s'il vous jël leen ay notes ndaxte tey li fiy xew tey lay xew nañu acclamer président balaa muy dugg nañu acclamer le président avec le Africa boo leen tàccul du ñëw de dégguñu dara na ngeen gën a tàccu président bu na ñëw ba léegi jugul loxo yi si kaw may xool où sont les drapeaux

nous sommes des enfants d'Afrique. Tout le monde. Même si le ciel te pour la paix. moom lay ñaan. tout le monde. man de jàmmu Afrika. yow mi nekk bitim réew man mi loo maa ngi lay ñaan Est-ce que ça va Who I buy more to? Urai maina malevo yo Mama ina malevo Do what? Baay Baay naa ma leewoo. tout le monde. Sénégal la jóge Sénégal la jóge tout le monde eh eh eh eh est-ce que ça va loxo yi si kaw xanaa daaga loxo yi si kaw xanaa daaga eh Balla Gaye Sonko ngay yëpp eh yeb ko seet soo ko yebee di nga xam ne jàmbaar yaa ngi di avancé aucun effort pour qu'il traverse et dépasse cette étape assez difficile pour luy et sa famille mbokk yi tey am nañu ab absent bu mag a mag a mag muy son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yu mel nii daanul am te du fi teew nekk suñu wet yu du mel ni daanul am te du bokk ci ñuy jël micro bi tey respecté bi ñu bëgg a respecté suñuy engagement ci li ñu bind suñu charte parti moo tax mu teggi tànkam waaye ma wax ni dara terew koo mun a teew fii te ci yeneen daje dina ñëw teew parce que bañ a jiite parti la lañ ko tere wala am ci yenn nombre tànk yi en tant que président de parti waaye il demeure un militant et le premier militant de ce parti te yeneen daje bu am falu ko man mii faluma ko kenn ci yéen falu ko ndax buur wala buur sax baaxul waaye président de la république ñun ñëpp ay nit yu am gëm-gëm lañu waaye nag yàlla dafa wax ni kulli man kulli man maalihul mulk kullahuma maalikal mulk tuutil mulka man tashaa'u yàlla moom dong moo yor nguur mooy seet ku ko soob mu jox ko ko bu dee Bassirou Diomaye fay moo ko soob ci fii senegal moo ko tànn jaarale ko ci carte électeur sénégalais yi dong nag kon ma fàttali leen lenn lu am solo am na benn anecdote boo xam ne tey laa koy soog a nettali ñu tuddee ñu benn waxtaanu diine fële ci Kër Massar mënuma woon dem ma def benn délégation bu ndaw ne leen dem leen ca délégation ba daal di dem ñu ànd ma ne basiiru Diomaye jiital délégation bi ngeen dem ba ñu demee dellu si nettali ma benn piste bu amoon mooy góor gi doon di waxtaan dafa toog ba si yàgg ne leen waa jële ngeen gis ñu ne ko ah mu ne leen kii de président la ku nekk di xool naan ko kan. mun leen borom mbaxane bu ëpp bële président de la république la bi ñu dellu seen nettali ma ko ca lañu door di ko tuddee di ko wooyee ñun sëriñ gundu ñu bëri xamuñu tur boobu ñu koy wooyee sëriñ gundu kon nañu xam ni président de la république ak beneen ndomb tànk raw bi nga xam ne nag nit dañuy dajale di ko tànn kuñ ci tànn rek yàlla la tànn te bu tànn bi jaaree fi mu war a jaar comme ni mu demee nañu xam ni mënuñu woon am président bu gën président boobu ci jamono ji lu am solo la te ma biral leen waxaat leen ko fii yéen waa Pastef jamono jii ñu toll Bassirou Diomaye fay nekkoon président la République moo gën téeméeri junni yoon ci réew mi Ousmane Sonko nekk président la République loolu mooy mbiru yàlla. dama leen mës wax wax bu am solo mës naa dem Ziguinchor ñu barricade ma fa mbir mi métti woon loolu ma defoon benn vidéo waxtaan ne leen nag li ma yàlla may moo ma ko may du sama njàmbar ku bëgg a noppalu ci àdduna mbindeef bu ne lu ko yàlla may nangul ko ko boo ko defee rek sa xol féex te yàlla da yow kon soo excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay président de tous les sénégalais mooy président bi décidé tey ci Sénégal ñun ñëpp ñu ànd jàppale ko mu exécuter son programme da ngeen ma invité nag ci waxtaan ci ab thème waaye thème bi ñaar lay doon ndax Juan Branco ak euh, Saïd na ngeen ma jéggal nag je serai obligé de beaucoup parler en wolof pour toucher le plus cible la plus grande cible du moins mais je crois que vous comprendrez et je m'évertirai de temps en temps à prononcer quelques mots en français pour vous mais pour pour nos amis africains qui ne ratent jamais aucune de nos sorties je vous ai dit que PASTEF est devenu un projet africain, mais il est devenu un projet mondial. Parce que nous sommes une attraction. Ce que nous avons réalisé au Sénégal aujourd'hui inspire toute l'Afrique. Et de temps en temps, nous devons pouvoir nous adresser à toute l'Afrique, à tous nos parents, nos amis et nos frères africains. ma fàttali leen ni ñun xam nañ fi ñu jëm ñun tànn suñu dëkk ba tombe ci nguur dañoo togg projet présenté ko Sénégalais yi xeex fukki at dix ans ñu koy xeex kon ku jaare foofu ba ñu jox la nguur xam nga fi nga jëm xam nañ fi ñu jëm de ngeen di fàttaliku samay vidéo yi ma préparer woon pour waajal li nga xam ne moom la gaa yi doon waaj pour euh, sal suñu projet dama leen grand maître et politique du monde ñu koy tuddee Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man jànguma man jànguma Machiavel liiruma Machiavel liiruma sun pour am na dama leen wax ni ki dàq politik ci àdduna loolu dàqantewul ak dara nag li nga xam ne mooy cosaanu réew mi mooy li ñu tuddee laïcité te suñu bos ñun ñu togg ko ci suñu méngook suñu culture mooy état bi dafa nekk à équidistance ak diine yëpp respecté diine yëpp loolu kenn du ko laal kenn jegewu ko ñi doon wër di wax dem ci kër waaye ñi leen doon déglu tam ba gëm ko te noon nag déglu leen alquran wax in jaakum fasiqum bi naba in fatabayanu ñi leen doon déglu ci loolu ñoom it tey am nañu lu ñu rus moo tax li xew Sénégal ñun ñëpp la war a doon leçon ci ñun ñun ñëpp la war a doon leçon ci ñun nañuy nawante di dégluwante di rafetante njort koo xamul rafetal njort ci moom ba keroog mu lay won safaan wi waaye ku noonoom di ñawal boo moytul pantalon bi du jot wala yére bi dina cëkk noon yuy dem di wër di wax tey bi ñu toogee ba léegi ñëpp lañu ñu yemale ku bokk ci jàngu bi ku bokk ci diine islam ku bokk ci tarixa bi wala tarixa bële ñoom ñëpp lañu ñu yemale ci Sénégal te Sénégal dëkku réew jullit la réew gëm-gëm la ñun ñëpp ñu ci loolu loolu ku ko fi bëgg a jëlee yaa fiy jóge kon li may wax dàqantewul ak lii ma tudd léegi mooy man sama royukaay ci wàllu politique ki yàlla yónni mu nekkoon ci situation bu ñu nekkoon amul ngànnaay amul alal amul bàjjen amul nijaay amul ku ko aar mu jox ko projet bu toll ni boobu ñu ko joxoon mu am fu mu jaar ba eggali projet ba ba tey ñu nekk ay milliards milliards kooku ku ko mënul rey ci politique koo fi jàpp jàpp nga ci neen kon fàttaliku leen ci vidéo boobu lan laa waxoon dama leen ne door nañu mu tombeek jamono ji bi mu nekkoon Makka moom ak li mu fa dund ñu jóge ci wàllu Makka gàddaay nañu yegg si Madina may leen jamono bi may doon def vidéo bi ñu ngi doon dëgmal Hudaybiya ñu jàng xam nañu Hudaybiya ak lañ fa signé ci pat ak noon nu mu mayee yonent bi alayhi salaam fukki at yoo xam ne ci la tabax Euh, ndëgërlaay gi nga xam ne moo ko may keroog bu muy jublu ci màkka fatu màkka bi mu am guerre amu fa xeex amu fa parce que ma nga jiite woon 10 000 personnes mu teeg bi muy am 313 personnes keroog ci badar may leen bu ñu jógee ci boobu te dinañ ci gañe bu soobee yàlla def nañu Hudaybiya am na ñu ko yëg am na ñu ko yégul teg ko ci xam-xam ak xel jóge ci Hudaybiya ñëw ci Fathu Makka mooy élection bi ñu weesu yàlla jox ñu ci ndam leer nañ ñu ko ciy sant bu baax kon ci ban étape lañu ñu toll fi mu toll nii mooy gannaaw faxtu mag mat fatu naka la yonent bi alayhi salaatu salaam yore woon mbir mi ak naka la doxale mbir yi li may wax nii waxuma ko ci wàllu spiritualité maa ngi koy wax ci wàllu woo xam ne wàllu àdduna la ndax yonent bi alayhi salaam du julleeg woor kese de waaw dafa amoon dimension temporelle ci dimension temporelle boobu laay wax nga xam ne même occidentaux yi dañuy dem di jàng ci moom dimension par temporelle boobu naka la ko yoree woon moo tax suñu gars yi jàngal nañ leen naka la ñuy defee politique jàngal nañ leen l'art de gagner en ayant raison sans pour autant avoir eu, leur avoir permis de développer leur art de gagner sans avoir raison. Les Guinéens, on va leur apprendre l'art de lier le bois au bois pour construire le Sénégal que tout le monde attendait. gis ngeen ñii ñii duñu seen morom te sénégalais yi koy gisal seen bopp jamono jooju la ñu toll. ki ñuy roy ñun ci politik naka la ko doxalee woon ci ñaari fànn ba njëkk mooy bi mu duggee biir Màkka nee na baale naa baale naa képp ku doon def tey leen rek dégg-dégg laa bëgg. su ngeen ñu déglantee rek bu ñu déglantoo rek seen omee ba ma daaneel rek dinañu déggoo ñun ñëpp da ànd ak dama wax léegi présentatrice bi muy commencé ne ko neel ma gars yi dama bëgg ñu déglu bu baax li ñuy waxtaan may gërëm yàlla di cité également kilifa yi fi teew tey ay ministre ngi fi teew fi ay député ngi fi teew fi fii teew fi ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay waaye di dellu sant yàlla ndax tey ñu ngi nii am ay ministre tey ñu ngi nii yor gouvernement yor ay député yoon bi métti woon na lool ngeen am ci nag taxawaay boo xam ne dinaa ci dellusi waaye nañu ànd ak déglu rek dama ne dafa ne baale na waaye baale bi mooy lan est-ce que ku sàcc alal réew mi bokk na ci baale bi musuñoo wax ni xàcc alal réew mi sooy baale da ngay baale li nga moom dërëmu réew mi moomu ko président Bassirou Diomaye Faye moomu ko kenn ci yéen moomu ko kon mu see bokk te suñu discours yëpp mun nañ ko génne kenn du ci génne gis contradiction ci point bi kon d'accord nañ ci te ma ne gars bi ñu jëlee réew mi léegi li ñu gis doy na de jarul lappi lappi jarul yooxu ñun duñu complot duñu créer kenn dossier dañuy faxasu leer nañ ne justice mi ngi nii wax lu ci yoon wax te fa la ñu jëm est-ce que baale bi est-ce que baale bi ñu wax baale bi est-ce que fekk nit boo xam ne day revendiquer ay droit loolu muy xeex nga faagaakal ko dóor ko balu fital mu dee est loolu bokk na ci baale bi mës ngeen ñu dégg ñu dañuy baale loolu kon ma dalal xelu ñëpp ni lañ ca war a def dinañ ko def jarul yàkkamti jarul parax-paraxe ndax tey bu ñu bàyyee ñi jàpp Didier Badji ak sàmbu daal di leen def li ñu leen di def ñu bàyyi leen nga rey nit keneen ki nga disparaître loo ko dem ba ci géej ga sànni koor ba ñu ne loolu yëpp nañ ko effacé dem bu boobaa ñun suñu bopp criminel lañu kon musuñu leen wax ni ca la bokk te du ci bokk jàpp nit parce que da doon manifester di ko torturer est-ce que loolu bokk na ci baale bi musuñu ko wax kenn dama ne dem recruter ay nervi ndax fàttewuñu nervi yi de dem recruter ay nervi jox leen ay ngandaay ñu song nit ñi di leen dóor ak di leen rey est-ce que bokk na ci baale bi musuñu ko am état jàng ko ca fa ñuy formé nitu état yi moo tax lu ñu yootu ba téye ko xam leen ni tey nañ ko ba mu dëgër ànd leen ak teey ak dal ñu ngi ci liggéey bi lan la ñu waxoon ni mën nañ ko baale man usmaan Sonko nee naa lañ ma def man mu jëm ci man kese lañ ma def man mu jëm ci man mën naa ko baale baale naa te di sàkku keneen koo xam ne sa xol may na la nga mën a baale baaleel parce que baale day féexal xol baale day yokk nit di ko wàññi loolu la waxoon ni ñun mën nañ ko baale waaye nag waaye nag waaye nag boo doxee ba ñu lay xeex ay at jël li ñu amoon ci moyens yëpp dalal ko sa kaw tiiñal la yàq sa liggéey dugg sa vie privée essayer tas sa kër toj say oto dóor la ay lacrymogène tëj la kaso loolu yëpp ñu def la ko te jamono ja ngay ne opposition nga ànd ak muñ jiital yàlla ba yàlla jox la ndam jaaree ko ci Sénégalais yi xanaa kay ku am xel tuuti nga ne nag léegi naa teggi sama tànk waaye dafa mel ni suñu gars yi jàpp nañ ni mën nañu continuer di xëy di saaga di sosal di wax lu bon ci nit ñi. ba pare toog tranquillement seen kër ma bëgg a leeral sénégalais yi lenn ñun suñu responsabilité en tant que ñu yor nguur te président Bassirou Diomaye Faye jiitu ci mooy réew mi il faut ñu delloo ko fi mu ne woon réew mi xamuñu woon lii de bañante enante di wax lu bon ci nit suba ngoon parce que rek àndu ci politique yéen ñëpp dégg ngeen samay discours. yàgg naa leen wax ni ku fiy wër di saaga bokkoo ci Pastef lu leer laa musa wax yàgg naa def samay vidéo naan leen bàyyi leen lii bàyyi leen lële mosul yoon yónni nit ci saaga wala xaste wala tiiñal wala di sosal nit ñi ko doon def gis nañ leen parce que bañ ba ñu jàppee ki koy def ñoom ñëpp génn nañ dem commissariat ne dañuy dem jàppale ko est-ce que mos nañ jàpp nit bu ñu ne dafa bokk ci Pastef ci ay saaga Ousmane ko dem fa wala mu wax ci musul am kon may wax ñëpp nag suñu responsabilité en tant que état mooy réew mi ki ma ne mooy suñu royukaay ci weer wi ñu toll weer wi ñu toll muy weeru tabaski ci la def tàggatoom discours tàggatoom li gënoon a fës ci discours bi mooy seen alal seen deret ak seen orma araam na seen diggante ci weer wi la ko waxoon deretu nit réputation nit vi privée nit loolu lu araam la nañ ko sàmmalante kenn ku nekk moroomam politique débat d'idée la contradiction d'idée la ku mu neex nga ne d'accorduma ci seen politique u mbay mii d'accorduma ci seen politique càmm gi d'accorduma ci li ngeen def ci ressource naturelle bi éducation bi ñu toog débat problème amu ci mais xëy rek ubbi sa internet di saaga nit ñi loolu duñ ci am tolérance ak kenn à commencer par waa Pastef yéen ñi seen bopp duñ ci am tolérance ci kenn barki démb semaine passée ministre de la justice man la envoyé vidéo ne ma kii ci Pastef la bokk te mu ngay menacer magistrat yi dama ko monsieur le ministre defal sa liggéey ñun neewuñu fi di xool kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax loolu lañ doon xeex démb duñ ñëw tey di ko dëggal kon fi ñu toll nii soxlawuñu saagakat soxlawuñu xulookat xam nga li ñu soxla liggéeykat jublu ci liggéey bi rek te dinaa ci ñëw ci deuxième partie bi may wax noonu ñu ko bañee ci kenn ku ne noonu lañ ko bañee ci kenn kuy wootewu moo xam dangay bind moo xam da ngay yor télé kuy wootewu journaliste parce que impunité bi am fii nag dafa ëpp man journaliste laa rek liberté de la presse mun naa xëy bind lu ma neex ku ma neex ma bindal la loolu jeex na ci réew mi jeex na tàkk dem leen ngeen liir code de la presse article 13 xaw ma article 14 wax na lan la ñu tere journaliste xëy dem jël ay affaire bind naan dañoo dàq général sangam Sonko ko dàq dafa doon dafa doon xeex rebelle yi moo tax ay waxu ñàkk fu la ñu ne ñu woola ne la fan nga jëlee sa preuve nga naan benn site internet bu nekk Delaware xaw ma fan loolu jeex na ci réew mi su Sonko sàccee xaalis su Sonko reyee nit su Sonko defee naka su dul noonu journaliste bu ci am preuve na ko bind def ko une bu rëy loolu c'est son droit loolu mooy liggéeyam waaye toog rek ne son ko neexu ma wala jox nañ ma xaalis wala neexu ma wala ma Samba wala Demba dinaa bind lu ma neex ci moom suñ ma wooyee ma ne liberté de la presse presse mënul am liberté bu keneen ci ñun amul président de la république sax amul liberté boobu président la république mi ñu fal muy le premier des sénégalais amul liberté boobu ab journaliste jàpp ni am na boobu droit bu dee am nañu fit la ñu bindoon nañ ko bindaat nañ ko bindaat merci réew mi réew mi ñoo ko bokk te faw ñu defar ko faw ñu defar ko lu ne dégg nañ ko fii financement bu jógee Russie Al-Qaïda MFDC lu ne dégg nañ ko fii lu ne waaye daanuñu sax dem porter plainte parce que xamoon nañ ni boo ko defee du mujj fen kon nañu xam ni liberté boo gis am na limitam mooy fu liberté ak droit wu keneen commencé nañ koy respecté noonu la amee ci leneen ak leneen l'impôt bi ñuy wax mais yow nee nga chaque jour nga def sa à une sa sa ne diw dafa détourné diw dafa sàcc diw rapport bi épinglé la ko yow ñu jox la nga dem say employé yi liggéey sa si yow nga leen di fay seen salaire daal ci dagg ne leen lii impôt dama ko war a yóbbu ci keesu état ba pare dàmb impôt bi sa poos lekk ko loolu détournement deniers publics la te xam ngeen lu ci code général des impôts wax dañ leen war a poursuivre pénalement waaye yemoo ci loolu am nga ñàkk jom bu ñëw nag ne waaw man maa sàcc waaye nag kenn du ci wax nañ ma baal ñu baal la nga ñëwaat sàccaat ne nañ ma baal ñu baal la nga ñëwaat sàccaat loolu dina jeex ci réew mi ku yaakaar ni yor sa média mooy tax nga mën a chantage yi ñu daan def suñ ñëwee régime bu toog ñu santaas ko di bind ci moom gars yi gaaw leen woo jox leen loolu jeex na fi ñun suñu yoon man lu ñu bindul ci man man lu ñu bindul ci man mu ne suñu bind lu ma jaaxal waaye nañu xam ni nag la won wan ñu na de ku yóbboo ku nekk looy wax ak looy bind na ko seet ba mu wóor nga wax ko bind ko moo gën kon duma ci sori ndax yii ay dossier la yoo xam ne dossier wu président Bassirou Diomaye Faye la mbokk yi yàlla jox nañu réew mi dama waxoon ni suñu sociologue yi dañoo war a jàngaat génne yeneen terme parce que man bëgguma ñu naan nguur gi nguur amu fi lu ñuy nguuru amu fi fii réew mi lañuy wax jox nañu réew mi muy loo xam ne responsabilité bu diis la président Bassirou Diomaye fay yenu ko ci ndoddam ñun ñëpp ñu war a ànd jàppale ko am na opposition Sénégal lu baax la lu baax a baax la man démocrate laa je ne suis pour la réduction de l'opposition à sa plus simple expression man dama bëgg mu am opposition bu am doole opposition boo xam ne day ñëw di contredire mais teg ko ci xam-xam teg ko ci ay chiffres ñun niñ ko doon defee ak ñoom ba mu jaaxal leen ñu ne ñii il faut ñu faagagal leen ñun dañoo bëgg ñoom ñu defee ko noonu te kenn du leen faagagal kenn du leen jege ndax bu dee gis-gis ñoo leen ko ëpp bu dee xam-xam ñoo leen ko ëpp bu dee njub ñoo leen ko ëpp bu dee patriotisme ñoo ko ëpp kon mënuñu wax ba jaaxal ñu ñun dañoo bëgg opposition boobu am waaye suñu moytul opposition du gaaw am de xam ngeen ndax lan seetu leen opposition Sénégal bi xam ngeen lan la ñu yaakaar ñoom. féewale Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko loolu mooy opposition Sénégal moo tax ma ne opposition du gaaw a am ndax Bassirou Diomaye Alaaji Bassirou Diomaye sëriñ Goundou ak Ousmane Sonko nit bi mun a dox ba féewale leen ki ko war a jur ki koy jur ak ki koy jur ju doogul moo tax ñu war a dem noppalu ji ndax bu ñu xamoon wallaahi bu ñu xamoon bu ñu xamoon bu ñu xamoon dinañ dem toogi wala ñu dem préparé wu dem defaraat seeni xalaat ñëw andi débat d'idées moo gën lii la ñuy essayé nag seetlu leen ko bu baax ñaar wala ñett wala ñeenti catégorie moo ci am seetlu leen ñoom ñëpp ak seeni presse bu ñu xëyee rek ña nga ci Ousmane Sonko <laughs> dama ne keroog président Diomaye ma ne ko yow santal yàlla ndax yow li benn président musul am moom nga am ma yow da nga am fusible gars bu ñu xëyee rek ña nga ci Sonko te fusible ba nag dafa miin a miin a miin ba dara jaaxalu ko loolu mooy sa sens kon yow demal toppatoo sa diplomatie demal toppatoo sa armée demal toppatoo sa lii ak sa lii xoolal nooy orienté mbir yi te teewul nag man mi ñu jiite may chef de gouvernement dinaa gouverner de ba mu mat sëkk nag cocc loolu mooy dagg xolu gaa yi Sonkoy Jomaay Jomaayee Sonko moom la bañ a dégg ba nee nañu tapis rouge bi morceau bi rek tapis rouge bi bu ñu gisee ma dox ci sax ñuy ñuy xataraayu ak maay dox ci tapis rouge dinaa ci doxa doxa fa mu neex ma jërëjëf jërëjëf ma ne bu ngeen seetloo bu ngeen seetloo bu baax ñiy wax yëpp nag ñaar ba ñetti catégorie la xam ngeen peut-être bi mooy ñan mooy ñi nga xam ne yaakaar nañ ni war nañoo mën a dellusi si nguur gi ni mu gën a gaawee te pour ñoom pour ñu mën a dellusi si nguur gi ni mu gën a gaawee fokk rek ñu fexe ba Sonko jóge fi comme saa ñu jàkkaarloog Bassirou Diomaye ñoom daal jàpp nañ tant que Sonko ngi ferenkulaay fi mu ferenkulaay rek mbir mi du du demee noonu ñaareelu catégorie bi mooy ñi nga xam ne jàpp nañ ni. li ñu ñàkk ñoom mooy pouvoir bi ñu leen joxoon jox leen ko pour ñu liggéey réew mi ñoom ñu toog di ci noos di ci nguuru soo waxee ñu naan ku aaye wal sa moom xawma yu mel ne noonu jàpp nañ ni ñun ñoo leen yàqal seen aaye moo tax en bi ñuy bi ñuy dund ñoom en bi jëmale ko ci ñun du fi jóge ñetteelu catégorie bi mooy ñoo xam ne dañoo jàpp ni am na ñu ñu bëgg ci réew mi te jàpp nañ ni bu ñu demoon ba wéet ak président Diomaye dina gaaw waaye tànk Sonko ngi fii dina xaw a jafe ñooñu nag xam ngeen fu ñu juumee wallaahi dañu xamul son excellence ay bu ñu xamoon son excellence suñu xamoon seen ex son dañu xam ni man maay seen jàmm man bëri na loo xam ne son excellence yëkkati ne ko fii ma ñëw ne ko monsieur le président ñaan naa la tegal ci suuf rek mu ji keroog daf ma xool ba si mu ne ma koromag ma ne quoi ah mu ne ma yow dama ragal ni gars yi dañ laa atteindre de dama ragal ni dañ laa atteindre mystiquement son excellence le président Bassirou Diomaye du ñeexum ñebbe de ay suñ ko xamoon dinañu toog di ñaan bés bu bu ne yàlla na fi ko yàgg waaye nag weesu nañu foofu fi ñu toll nii ñun dañoo fas yéene jublu ci liggéey bi tàmbali nañ ko bu yàgg sax waaye maa ngi dellusi si doog a ñëw nag ci ñaareelu pàcc bi ñaareelu pàcc bi mooy li taxoon ñu daje fii li taxoon ngeen woo ma fii mooy lan la ñuy xaar ci peuple sénégalais balaa ma naan lan la ñuy xaar ci jeunesse sénégalaise bi peuple bi yëpp laa bëgg a waxtaanal gis ngeen politique. amul lu ko gën a noble politique amul lu ko gën a noble ci àdduna yàgg naa wax ni nit mën ngaa matadi sa lépp manqué nga dem taxaw jàkkaarloog suñu borom mu seet la nga doon daj ngir sa askan mu ne na jàll loolu man gëm naa ko julli baax na koor baax na aji màkk baax na leneen ak leneen waaye sonn ngir sa askan gëm naa ni amul lu ko gën a noble moo tax gars yi ñoom affaire politicien la ñuy def politique ñu de ñun nag dañuy politique te nit ñi dinañu xam lan mooy suñu différence ci cadre boobu yàlla jox nañu réew mi ñu ngi ciy liggéey lu mucc ayib réew kenn du ko soppi ci ñaari weer kenn du ko soppi ci juróomi weer kenn du ko soppi sax ci benn mandat waaye xam ngeen lu am solo mooy nga teg les fondamentaux yoo xam ne bis bu ne sénégalais yi bu ñu yeewoo gi nga teg jéego boo xam ne xam nañ ni fi nga jëm moo yóbbu senegal ci progrès ak développement ci loolu la ñu nekk ñaar moo mën a am soit ñu def la gars yi doon def mooy bu la yàlla joxee réew soit nga nekk ci benn agenda politicien mooy déjà yaa ngi xalaat élection bi di ñëw yaa ngi xalaat élection bi di ñëw militants yi wër la ku nekk naan la mën a mën a jox ma ñoo fi newoon di def lii ñoo fi dajoon lii jox ma jox ma nga topp ci loola waaye loolu weesul juróomi at élection dina ñëw ci juróomi at yi dina am benn élection wala ñaari élection wala ñetti élection waaye foofu la te boo ko defee askan yu jéppi la parce que askanu Sénégal li mu sanctionné ñi fi nekk lii rek la de du leneen ñaareel bi nag mooy suñu option ñun ñun xoolu la prochaine élection ñi ngi sénégalais koo laaj lan mooy PSE xamu ko yen ñi est xam ngeen lan mooy PSE lan mooy volet agriculture PSE lan mooy volet industrie PSE lan mooy volet financement PSE xamu leen ko nun du ñu doxalee noonu gis nga changement boo ko bëggee def ñi la jiital il faut ñu xam foo jëm ku xamul foo jëm mënu laa gunge moo tax yi ñuy def nii yëpp di lappi lappi waaw dund bi seer na ñii defuñu li ñaari weer dund bi ñoom ñoo ko seeral de ñoo seeral dund bi sàcc xaalisu réew mi jaxase mbir yëpp defuñu sax ñeeri ñaari weer xam nga ñoom suñu muusoon sax dañuy dem làqatu ba ci kanam ndax boo sàccee ñëpp daw ne wupp sàccee nga dugg ci benn ruq gaa yi romb gisuñu la waroo gaaw a génn de danga war a toog foofu ba affaire yi dal ba guddi ba mu lëndëm nga yot ndànk waaye yow gaa yi demaguñu sax nga génn naan woy waaye dina dina saf si ñoom dina saf sap sap sap sap sap te ñooma ñoom gis ñoom ñoom li ñu yàq ci 12 ans li ñu yàq ci 12 ans moom la ñu bëgg a wëlbatiku gëmloo sénégalais ñun ci ñaari weer lañ ko waroon defar est-ce que loolu xel nangu na ko 12 ans nga yàq réew mi yaxet ne ñun ci ñaari at nañu régler lépp donte nag dinañu régler bu soobee yàlla fii nag fan yu néew probablement semaine bi sax. dina dinañu wax sénégalais yi mesures yi ñu jël pour wàññi dund gi bu soobee yàlla dinañu defar de waaye dama bëgg a partager ak yéen ngeen xam fu ñu toll parce que yéen yéenay projet bi de du ñun su ma waxee vingt cinq man dans vingt cinq ans attanu réew dans vingt cinq ans yéen ñi am vingt ans vingt deux ans vingt cinq yéen yéen a war a nekk Bassirou Diomaye Faye yéen a war a nekk Ousmane Sonko du man kon projet bi yéen a ko war a porté sénégalais bu ne da cee war a jël wàllam fan lañ ci toll bañ ñuy fal dañoo am un projet projet bi lan la wax un Sénégal prospère souverain juste def naa loolu la wax ci projet bi ci loolu la ñuy liggéey projet la ñu ñëwee projet projet mooy li ñu présenté woon sénégalais yi ne lii mooy programme président Bassirou Diomaye Faye 54 pour cent des sénégalais ñu au premier tour en tant que opposition lu musul am 54 pour cent au premier tour pour l'opposition boo koy natt dëgg dëgg dëgg nattee ko 78 pour cent ou 80 pour cent dëgg dëgg dëgg lañu la jox boo ci génnee càcc gi génn ci mbuxum gi génn ci yeneen ak yeneen. kon étape boobu la ñu tolloon nee naa leen ñun dañoo xam état xam fi ñu jëm biñ ñu ko joxee dañoo commencé liggéey bi liggéey bi ñaari fànn la bi ci njëkk mooy am na le courant da nga fay fekk mbir il faut mu continuer dox li ñuy wax le principe de la continuité de l' mooy ndox war na am courant war na am nit ñi war nañoo lekk nit ñi war nañoo naan nit ñi war nañoo faju nit ñi war nañoo nit ñi war loolu dañ koy continuer di ko améliorer loolu mooy la courant waaye à côté ñun dañ fee fekk lu tudd plan Sénégal émergent yàgg nañu wax ni baaxut te su baaxoon senegal du toll fi mu toll ni ñu ne li nga xam ne mooy le nouveau référentiel des politiques publiques mooy li nga xam ne moom la ñuy togg ba nga xam ne tey lay doxal Sénégal ci juróomi at yi di ñëw foofu lañ koy tibbee ñu ngi ci liggéey boobu te demuñu jéggaani ko ci biti de ñoom bañ koy def dañoo dem jël benn cabinet bu tudd Mackenzie fay ko 3 milliards ñaari at ñu ñu fal la 2012 ba 2014 ngay doog a génne PSE. ñun ñu mille ngi fal 2014 2024 septembre 2024 ñu génne leen suñu document. septembre 2024 ñu génne leen ko. incha allah te demuñu ko demuñu ko jéggaane ci biti doomi réew mi ñoo koy defar ba mu mat sëkk. kon ñun duñu ñoom wax ji nañ ko bàyyi seetaan leen lii ñëw rek léegi wax ji dootul bëri de parce que saagaa leen desoon ak xaste te dootuñu ko def bind di su sala fi desoon te duñ ko def nañu dem sàkku xam-xam duy seen xel yi ñëw taxaw ak ñun ñu discuter ci suñu programme loolu rek a fi des ñaareel bi nga xam ne ñoo ngi koy togg mooy vision Sénégal 2050 ndax kuy defar réew dangay gis fu sori àdduna bi taxawatul ci benn bés les choses vont vite donc ñi ngi togg document bi ñuy wax Sénégal vision 2050 ñetteel bi président Bassirou Diomaye Faye jox orientation yi ñu def plan yi man nag en tant que chef de gouvernement maa ngi jéggalu ñu mu neexul ma coordonné ko nag daal di xëcc nopp ministre yi noonu lay doxe bu ñu defee plan d'action gouvernement bi def les plans d'action yi nga xam ne ministère bu ne ci la war a doxe daa di togg nag li ñuy wax les politiques sectorielles filières mooy filières yi Sénégal amul benn filière du mbay du càmm du euh, industrie du pétrochimie amul benn filière boo xam ne soo ko jëlee Sénégal mun nga ne am nañu chaîne de valeur complète amul kenn mënul développer réew ci loolu moo tax mënuñu exporter mënuñu jaay ci biti suñu lépp a ngi jógee ci biti bu nit ñi sëqatee ci biti ñun ñu soj loolu moo tax fa ñu jëm xam nañ ko de la ñeneen ñi def ba développer dinañ def lu ko raw ba def ba romb leen ñun foofu lañ jëm kon lii nag. lii ñu boole kook nag continuer di gëstu ndax suñu tekk-tekkaaral bi bu ñu jàpp ni faiblesse la de ñoo ngi gëstu semaine bi rek lancé nañu ay audit plus de 60 structures yu audité yi nga xam ne jotoon nañ ko def te mu nekk ci cour des comptes nekk ci IGE nekk ci leen ak leen dañ ko génne teg ko ci table justice mais justice bu ñu defar bu ñu bu ñu bale ba noppi ndax xam nañ li fi xewoon ci justice bi buñ ko balee ba mu set jël les vrais magistrats ñi nga xam ne jub nañu dinañu appliquer loi ni ko yoon waxee buñ leen tegee ba pare la ñu war a def yëpp dinañ ko def ci ñi luubaloon alalu réew mi lépp dinañ ko teg ci yoon. xam nga dama leen di wax nii man mii lu daj nañ ko pour ma bañ a nekk candidat lu ne fañ ko jaarale woon ñoom. ma wax benn ministre ne rapport épinglé na ko wax na léegi lii ñu ne loolu amut dem ministère des finances daa di nëbb rapport bi suñ ma convoqué tribunal daa di baare yoon bi dóor toj samay oto pour ma bañ a egg tribunal ñu corrompre ay magistrat cour d'appel ba cour suprême ñu ñëw génne seen décision conseil constitutionnel président Badio wër moom dem lu kenn mësul gis ne moom mooy dem décision de justice toogul ñu andil ko ko pour Sonko bañ a nekk candidat waaye yàlla ay mbiram tey rapport bi ñu doon nëbb ma nga sama kaw table ma nga sama kaw table rapport ba sama kaw moo tax yàlla rekk a mën te nag te nag dinañ ko jox justice mu def ci li ci war a def ndax seen fen boobu ñu doon fen tax na ay nit dee tax na ay nit dem fi kaso tax na ay nit ñu gaañ ko te bañ koy def ñoom ñëpp xam nañu dañuy fen ngeen jégal ma ci kàddu gi kon ma dellu si neneen projet bi yéen yéen a koy porté naka ngeen koy porté bu leen nangu ñu dugal leen ci débat yoo xam ne amul solo bu bu leen ku jóg wax rek ngeen dangeen koy tontu suñu mag Alioune Tine wax na xalaatam est-ce que dafa saaga est-ce que dafa xaste man d'accord ma ak xalaatam waaye loolu mooy rôle moom jarul xuloo jarul xeex loolu mooy rôle am te démb mi ngi ko doon def ñëw toog suñu wet naan li ñuy def du yoon néewoon na ci baatu société sibil yi ko doon wax di ñu fekk suñu kër di ànd ak ñun di solidarité moom ak keneen ak keneen Seydi Gassama Birahim Seck ci jamono jooju ñu ci bëri ci ñoom ñu nga woon pale toog ci ñeneen ñi kon tey bu waxee xalaatam buñ ci d'accordul tam nañu ne d'accorduñ ci rek andi ko teg ci teg ko ci xam-xam waaye yooxu beeg xaste beeg ñun santuñu ko kenn lay li ñuy xaar ci yéen fi mu toll nii mooy cette formidable force qui est en vous vous la jeunesse du Sénégal toute l'Afrique vous envie ay héros ngeen yéen jeunesse du Sénégal le mont entier vous envie su ngeen xamoon damay xëy suba ba ngoon jot di recevoir ay nit yoo xam ne dégg naa rek ne nañ waruma recevoir ay ambassadeur lan mooy ambassadeur lan mooy ambassadeur est-ce que xam ngeen ni dans un pays normal ñun suñu demoon ba egg fi ñu bëgg a jëm premier ministre du recevoir ambassadeur du ñu samay nawle ambassadeur Sénégal bu nekk France du gis premier ministre France ministre sax ministre affaires étrangères sax du ko gis benn conseiller euh, Cellil Ali Élysée la mën a gis wax ak moom su ngeen seetloo bi ma toogee ba léegi euh, page Facebook wala situ primature mosu leen gis ñu affiché fa photo ambassadeur bu may recevoir parce que man pour man lu ordinaire la recevoir ay ambassadeur te ku ma ci recevoir it sama kilifa soo nekk France moom moo naan ma recevoiral ma ambassadeur tel ma recevoir ko waaye lima ma a wax foofu rek mooy ambassadeur yi ñuy recevoir om d'affaires yi jóge fu ne damay xëy suba ba ngoon jot bis bu ne ay nit jël seen jet privé ñëw spécialement pour dajeek ñun wax ak ñun dellu waaye li ñuy wax mooy Sénégal vous ne savez pas ce que vous avez réalisé. Vous êtes une lumière pour le monde, pas seulement pour l'Afrique. Et vous n'avez pas le droit d'échouer. amuñu droit échouer parce que bu ñu échouer liy kase démb dama recevoir benn homme d'affaires bu mag a mag mu jóge fu sori jël jet privé ñëw ne daf may gis parce que dafa bugg a andi ay investissement ak yeneen ak yeneen. mu ñëw ñu toog mu wax ma benn frase bu am solo mu ne ma est-ce que xam ngeen ni ce que vous avez réalisé est plus fort pour l'Afrique que la libération de Nelson Mandela nii la ma ko waxee kon ñun dañu war a xam li ñu yor ñii nga xam ne rek seen gémmiñ a ngi nàcc te duñu wax jàmm bu leen leen déglu bu leen leen topp xam ngeen fan la leen président Diomaye soxlay xam ngeen fan laa leen soxlee mooy une formidable mobilisation citoyenne ba doole googu ñu amoon ba mun a jàkkaarloog état parce que ton nañu ba jàkkaarloog état parce que li la doon bañ projet bi egsi fii cette formidable énergie qui a porté le projet qui a protégé les porteurs du projet il faut désormais qu'on la transforme en une énergie de construction de notre développement C'est ça que nous attendons de vous. bu leen topp seen i wax ndax ñun xam nañ ni attanuñu ñoom opposition keroog bu ñu demee commissariat dégg naa policiers yi grenade bi benn grenade lañu jël xaaj ko ñeent jël ci benn sànni leen rek ñoom ñëpp a soj kon attanuñu ko bu leen <laughs> gaa yi gars yi gars yi jàmbaar ngeen de. kon soxla nañ seen énergie pour la transformation de ce pays ñëpp nu mënuñoo nekk du ñëpp a mën a xëy rek c'est-à-dire fonction publique ba mu daj boo moytul ñi fi nekk ñoo leen ëpp kon ñëpp mënuñoo xëy nekk directeur général ñëpp mënuñoo xëy nekk ministre mais réew de nee nañu voilà seen i famille sax dañ leen di xas ne leen nee na fi newoon di xeex te fàtte nañ leen déedéet déedéet ba ñuy jóg di xeexi kenn ci ñun amuloon yaqin ni dinañu jël nguur nañ jël pouvoir bi kenn kon dañoo xeexoon ngir des principes des valeurs te ñun ñooy àndoon xeex ngir de principes et des valeurs tey bu ñu yàlla joxee réew mi ñun ñooy ànd liggéey liggéeyal réew mi waaye kenn ku nekk ak fi nga ko mën a liggéeyee kenn ku nekk ak fi nga ko mën a liggéeyee te it la tax sénégalais jëppi ñeneen ñi. war nañu moytu mu dal ñu kon saa suñuy ñuy tànn dinañu seet ndax charte yi mat na parce que bëgg nañ kenn ku ne suñ la dénkee nga bañ ñoo gàcceel ndax moo xo ko de kuñ fi dénk mënoo dañ lay wàcce waaye kuñ fi dénk nga jël kaso nga jëm kon ku ñuy dénk rek bëgg nañu mu leer ni lañ lay dénk mën nga ko àttan nga ko te am nga njub pour yor ko yorin bu gën a rafet ñi ñuy dénk it dañu soxla ay collaborateur mais ci ñi ci ñi fi nekk lañ koy jëriñee waaye li ëpp solo mooy projet de développement bi dafa am un volet citoyen sànq bi may ñëw dama waxtaan ak président Diomaye mu ne ma fàttalil ma gars yi projet citoyen bi def nañu une première édition nettoyée ñëpp génn nañu macha allah. waaye dañ naan Sénégal départ la amul arrivé weer wi di ñëw bu doon fukk a génnoon bi pa dañoo bëgg junni génn il faut ñu inscrire suñu action dans la constance et dans la durée ak nu mu yàgg yàgg yàgg gis naa ay image yoo xam ne xam naa ni ñu ngi fii ci biir ñi doon dugg ci biir caniveau yi di génne pneu yi loolu amul lu ko mën a lu ko mën a fay ci projet bi bu leen jàpp ni fii am na kuy nguuru de ma ma wax leen ni président Bassirou Diomaye bu nelawee par bës ñetti waxtu la nelaw ci bës bi man saa su ma xëyee yàgg naa leen wax ni politique amul lu ma ciy xaar salaire sax bëgguma ko ci li ma musa am ci salaire delloo naa ko askan wi te noonu laa koy defaatee nii soxlawuñ ci dara lay defar réew mi moo ñu intéressé kon bu ñu ma duggee ci suñu oto motaar yi jiitu ñaari oto ne ci benn oto ne ci kanam benn ne ci man su may xool ci vitrine bi maa ngi xool senegale yi maa ngi naan lan laay layoog ñii ci kanamu yàlla nag waxuma fii lan laay layoog ñii kon nañu xam ni kenn ku ne ci ñun am na lu ne ci moom loo xam ne dañ koo donn wala nañu cee mooñaale ci niñ doon doxalee fii nañu fexe ba loolu ñu génne ko ci ñun nañ ko génne ci ñun nañu dellu si la ñu nekkoon bi ñuy ne opposition bi nit ñi di génne di xeex amul kenn ku ñu jox post wala dërëm wala ñu digla waaye dañoo gëmoon ni lii mooy soppi Sénégal est-ce que dinañ ñëw tey ba ñu dénk ñu nit ñi di teggi seen tànk parce que joxuñu ma lii wala seetsiwuñ ma wala woowuñu ma wala wala wala est-ce que loolu di ngeen ko def yéen kon l'action citoyenne est le fondement et la base de la réussite de notre projet moo tax son excellence président Diomaye daf ma delloo dafa nangu ci madame nangu ko sax dafa jëlee ci madame le ministre de la jeunesse lii nga xam ne mooy le service civique national et le volontariat daan ma koy delloo si man primature parce que man ak yéen xam ngeen ni terrain bi la man ak yéen terrain bi la dinañ ko organiser waat ubbi ko yéen ñëpp bindu leen ci soyez des volontaires de votre patrie soyez votre des volontaires de votre propre développement ñoo ngi ko doon def démb ak barki démb te amuñu benn moyen def nañ fi vacances agricole patriotiques def nañ fi ay don de sang def nañ fi ay euh, activités di nettoyer cimetières yeeg écoles yi bii paa nag dañ ci lëkkaloo ak armée nationale lëkkaloo ceeg les entreprises ñu génne seen matériel lëkkaloo ceeg budget bi nga xam ne état bi dina ci génne gis ngeen vacances yi man ak yéen ak président Diomaye ak tous les ministres dinañu bay dinañu bay de dinañu reboiser dinañu reboiser dinañu dem defar ay école tabax ci ay salle de classe tabax ci ay toilettes ñu def ay action citoyenne yu mucc ay fii ci vacance yi ñu jëm loolu mooy wane ndax liñ doon wax ñun la don de sang de soi pour la patrie est-ce que dëgg la si ñun am déet kon mbokk yi mun naa toog di waxtaan ba fajar waaye soxla nañ leen ci ngeen dooleel ñu ci combat yi ñu jëm ñëpp a ngi wax wàjji dund est-ce que xam ngeen li tax dund bi jafe man nee naa leen mënu leen ma mënuñu maa vaar parce que sama waxu démb mooy sama waxu tey yàgg naa leen wax ni fii rek tabaxuñu économie lu dul jël xaalisu réew mi dem lépp pour def di saupoudrage tabax ñaari tali ñetti tali tabax ab stade tabax ab théâtre tabax ab loolu yëpp baax na waaye ana économie bi ana mbay mi ana càmm gi ana napp gi ana industrie bi réew mu amul loolu réew moom mu existé wul nañ ma wax ana loolu kon ñun suñu priorité foofu lañ ko jëmle tey wàññi soo buggee wàññi dund bi il faut nga jël li nga xam ne mooy impôt yeeg taxes yi nga ne teggi naa ko bàyyi naa ko léegi impôt yooyu ak taxes yooyu waroon la permettre tey nga répondre à d'autres préoccupations des Sénégalais parce que suñu lépp ñu ngi koy jéggaani ba tax boo buggee changer réew mi tam il faut nga am capacité financer sa économie

état boo ko jëlee changement bi ndànk-ndànk nga koy yóbbu waaye fi ñu bëgg a jëm néew ma dootuñu doon dootuñu leb de waaye ñun ñooy xool nu ñuy lebee ak kañ lañ koy defee ak nuñ ko bëggee foofu lañ jëm waaye pour ñu finance suñu économie il faut que li nga xam ne mooy suñu koom-koom réew ñu téye ko ñun ñoo leen diggoon ni nañu renégocier contrat yi est-ce que xam ngeen nañ ko renégocier man maa leen ko wax fii la moom ci or am ko ci pétrole am ko ci zircon am ko ci gaz. te ñu joxe ko ci anam yu dul yoon lépp lu ci Sénégal war a moom nañ ko delloo ci réew mi te door nañ ko fi mu toll nii waaye xam ngeen ni xeex yooyu bis boo ko yëkkatee yaa ngi jàkkaarlook ay multinational yu am doole yaa ngi jàkkaarloog ay réew yu am doole xam ngeen lu mën a permettre ñu gagné combat bu rapidement mooy que askan wi saa suñu wëlbatikoo gis leen suñu gannaaw est-ce que pare ngeen ci loolu kon soxla nañu dem jàkkaarloog askan wi wax leen ni lay defar réew mi ngi jóge ci poosu kenn ku ne ci ñun mooy fay lempo dañ def réforme impôt ndax dama leen yàgg a wax ni li ma gëm mooy lempo gi gën mooy lempo gu ñu natt ci asaka mooy lempo gi na néew waaye na ko ñëpp fay moo nga am lempo gu cher te kenn du ko mën a fay dañu def réforme bi ñuy war a def mais bu ñu paree soxla nañ leen yéen en tant que volontaire ngeen dem fekk sénégalais yi ci seen biir kër fekk leen ci marché yi fekk leen ci gàrru routière yi convaincre leen ni dañoo war a fay l'impôt pour ñu defar réew mi kon li ñuy xaar ci yéen bëri na de su ma ko doon lim fii mun nañ fee fanaan waaye fi may daanelee rek mooy xam ngeen nag gars yi léegi nag léegi nag président parti bi mooy aussi chef gouvernement bi te liggéey ak may xaar te lépp ci réew mi la jëm dinañu dajewaat dajewaat te nee naa leen son excellence moom ci boppam dina ñëw taxaw waxtaan ak yéen waaye lenn rek laa leen di ñaan lenn rek laa leen di ñaan bu leen kenn divertir. fu ñu leen woo rek wuyu leen nañ ko daan defee démb ak barki démb bu ñu kenn divertir la ñu war a régler ci li nga xam ne pasif la dinañ ko régler waaye warul doon loo xam ne mooy suñu priorité ba nga xam ne suba ngoon ñu ngi ca loola. lool lu ordinaire la reddition des comptes waaye ñu jublu ci liggéey bi xam leen ni ñu ngeen fal mat nañ lañ leen di doyee gis-gis bi leer na yéene bi dëgër na loxo yi set na. àndi leen ak ñun ñu defar réew mi soppi réew mi ba faaw te bu soobee yàlla bu ñu jaaree fi ñu war a jaar néew ma la vingt cinq ans néew ma la cinquante ans kenn ku ne ci yéen wala doomam wala sëtam mën na nekk président de la république ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamualeykum wa rahmatullah way leen di gën a abonné ci chaîne chaîne YouTube bii di syndicalisme TV la télévision du moment bi leen di jox mbooleem xibaar yu wér wóor ci à temps réel